وزدنا علما واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا بوكي جلتي جنا بن سانتا يالا جلتي يونتيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سانتا سيرين توبا شيخ احمد بن بخاري مرسو نيو نين دي نيو دي لين زياره فاسيني ديلو سوات اك يين سي نيرين يي نيو باخو اند اك يين في سي سين يوتيوب لي غران سيكري ان ولا بروميير سيان لاسرار دي سينيغال سيكري بي نيو اندل تي نك دافا اديو سي سر محبه عامه سر جذب القلوب بوغ يالا تاغاتال لا اولو دوما aadama yi ba ñu jublu la ci di la jëriñ maxabba bu yéeme loolu la nag ki nga xam ne moo yëngu ci wàllu lasraar mën na koo am yàlla dina ko defal mbooloo incha allah ki yëngu ci wàllu commerce itam mën na koo def yàlla tàggatal ko mbooloo ay clients yu bari kenn ku nekk ci fànn bu nga yëngu boo ko ca fasee te yéene ko ci incha allah yàlla dina la defal tawfiq da ngay julli ñaari rakaa yoo xam ne naafila lay doon loo ci tari baax na incha allahu taala ci alquran su ko defee nga zikkar ginnaaw boo illallaahu muhammadun safiullah laa ilaha illallaahu muhammadun safiullah moom ngay zikkar junne yoon wirdu ko junne yoon mille waaye ci téeméeri yoon yu nekk saa yoo ak see ci téeméeri yoon yu nekk saa yoo ko wirdoo téeméeri yoon da ngay taxaw def ñaan gi allahumma inni aduuka bi xaqi xurmati laa ilaha illallaahu safiullah an tajzuba li uluba ibadika ajmain taa yanqaadu li wa yaxdaru li بالمحبة والمودة والعطف برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سيوير لا إله إلا الله محمد سفير الله تيميريون نغي تاخو الب جانغ نيان كي دا دي كروس بي تامل وات لا إله إلا الله محمد سفير الله باما تيمير تاخوات دا دي جانغات نيان كي بو نغي امي bés bu nekk nag nga di ko def benn yoon incha allahu taala nga bañ koo bàyyi te di ko sellal boole ko yéene ju sell suñu borom dana la ci defal tawfiix incha allahu taala ñu ngi leen di di leen gërëm di leen wax ngeen aimé vidéo bi te partagé ko képp koo xam ne suñu borom dafa dogal nga yittewoo bayre njaay bi nga xam ne moom la ñuy joxe jàpp ni na te képp ku yëngu ci wàllu commerce rek war nga ko am waaye jaaru yu am solo yi nga xam ne itam moom la ñuy joxe mu aju ci wàllu ubbeeku ci wàllu wërsëg bayre ak kaaraange nga xam ne ñu ngi koy joxe ci biir réew mi ak bitim réew képp ko yittewoo tam mënees na la ko libéré ba nga mën cee jot ak fépp foo mën a nekk ci àdduna bi incha allahu taala garabu kër gi mu aju ci ñi nga xam ne suñu borom dafa dogal ñu yittewoo ko gaaw garabu kër gi ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo bu ñu wootewee itam incha allah fépp fu ñu mën a nekk dooñu leen ko mën a libéré ci kàttan suñu borom lii gën ci ñun yàlla na ni ko yàlla defal te mu dëppoo ak lii nu gënal salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf